noonu la xasiiday borom tuubaay di demee makka di dikk léeg-léeg nit jàng xasiida xasiida ga dem ba makka wóor ko ci jàngim ko jàng léeg-léeg nit ki jàng xasiida xasiida gi dem ba ci rawdatu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko ci jàng gi ko diw jàng moo tax kon xasiida yi képp ku leen di jàng di leen durus na nga xam ne boo ko yëgee ak boo ko yëgut soro mi ngi ci xadraay sunu borom bi soro mi ngi wër kaba gi soroo mi ngi wër raw dëkk yonent bi sallallahu alayhi wasallam sa jëmm ji sax demut te lum yàgg-yàgg da dem màkka faw ala kulal ci sa dund wala da nga fa dem ay yoon yoon yoon kon jànkatu xasida gi noonu xasida gi nag mi tàmbalee ko awsil bi haqqi wajikal karimi hamila salil bayti bi takrimi sil yow yàlla dama bëgg na nga eggali bi haqqi wajika ci haqqi sa jëmm ji alkarimi ji daaji tedd hamila aji bind hamila aji henu saa ab yi saa bayit gi sa saa xasida gi lil bayti jëmee ku ca kaaba gi bi takrimi ànd koog teral ga. yow sunu borom daal dama bëgg di la dagaan rek ci sa jëmm ju tedd ji dong mooy man mi nga xam ne maa taalif xasida gi dama bëgg yow sa bopp su ko defee nag na nga ko yeggale ca kaaba ga mu wër ko waaye nag buy ñëw mooy takrim mooy na nga ko duyal ay ay ay ay gaalam ay walisam bam mu fees dell ak yóbbal ndax kuy dem màkkat wax dëgg yàlla tabaarakallahu da nga soxla boo demee ba noppi nag jënd yóbbal ak la caaj yëpp waaye da soxla itam dem ba Makka di matal mboolem ponk yi nga xam mooy ponk aj kon yàlla nag yow laa bëgg di ko dagaan sa jëmm ju tedd ji mooy ki bind xasidi gi di man borom Touba nag ma jotalal xasidi gi ba mu yegg ca Kaaba ga wër Kaaba ga waaye na nga ko teral kon awsil na nga jotal bi àq wajika ci àq sa jëmm ji alkarim jiraat ji ci tedd alkarim jiraat ji tedd xaamila aji xenu saa xasidi gi dégg nga lil bayti jëmee ko ci Kaaba dégg nga bi takrim ànd koog teral ga. xaamila saa xasid borom Tuubaa la ci jublu bu ne xaamila saa saa boobu ismul isaara la man mi yenu xasidi gi moom moom daal moom mu ko bind maanaam daal naka ko yàlla jotal lil bayti mu dem ca Kaaba ga wër ko waaye bi takrim yi bu xasidi gi wëree Kaaba ga ba noppi te yàlla jotal ko ko ba mu wër Kaaba ga moom xasidi gi bi takrim mi na ko teral nga xam ne bu doon nit ku dem mak tey bu demee ba noppi ba ponki aj yëpp mu def ko ba war a ñib si yóbbal ya muy jënd ci xeeti taa ngir war koo indaale waa Sénégal loolu mooy hamila saa lil bayt bi takrim ndax dem na ba yàgg dem na ba yegg waaye takk na mbuus gu yóbbalam di koy ndaale kon na nga jotal càq sa jëm ju tedd ji hamila aji yenu saa xasida gi lil bayt ko ci sa kaaba ga bi takrim ànd koo teral ga aw sil na jotal hamila aji yenu xaasal kitaab ji téere mooy ki bind xasida gi rek li baytika jëmee ci sa nii ba muy kaaba ga alxaraami ga duguñ xormaal xamalan ci lu nu fang aw xaamila ak loo xam ne aji nëbbu mu ne nag man mi xenu xasida yi xam nga yóbbal dañ koy yenu yóbbal moom ala kulal foo mën a dem rek da ngay ànd ak moom kon xasida gi da ko bind ngir def ko yóbbal moo tax mu ne nanga nga jotal xasida man mi nga xamee ne maa ko bind maa ko xenu mu doon ak yóbbal goo xamee ne dama koy yóbbaloo ci sa kaaba ga yow dama bëgg nag nga yeggali ko ci sa kaaba gi nga xam ne mooy bayti lay xaraam mooy néeg boo xam ne yàlla da ko xormaal ba nii ba tax mu mujj xormaal mboolem dëkk bi dégg nga tere lu ñuy tuddee mboolam xeeti jalgati yëpp ba nga xam ne dëkk boo xam ne dëkkub sécurité la dëkk boo xam ne rab ya fa nekk sax melentaan yeeg yëpp dañoo am sécurité waxuma la nag nit ñi. defe naa ne fu demee ba ay rab di am sécurité ci ab dëkk ba ci xobi garab yi di am sécurité kenn du leen dagg dégg nga loolu yëpp defe naa ne bu amee sécurité noonu dëgg dëgg waxee sut nit ñi fa dëkk naka naa. moo tax mu ne ko awsel na nga jotal xaamila aji hen waasal kitaab bi téere mu jubli ci moom boppam moom sëriñ bi li baytika jëmee ko ci sa kaaba ga alxaraami gër guñ xormal xalla man ci lu ci lu ne fang aw xaabira ak loo xam ne aji nëbbu la lii moom daraan fang ñëpp teg ci seen bët lii nag day nëbbu ba kenn du ci teg sa bët bu ñu ne alam xam ne ñëpp jàkkaarloo nañ ci seen bët nga xam ne amul sikk xaamil mooy loo xam ne moom kenn du ko gis ba di ci teg sa bët wala xasida borom Tuubaa yi dégg nga tabaarakallahu heure bu ne ñi ngi dem ci rawdu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye ñi ngi wër Kaxbatul Musharraf laka xitaabi te xuudu lii bi xayri durrin ma naka laka ñeenal yow kottu kottu xitaab bi sama waxante ak yow muuqinan mbir moom may aji wóolu mbir moom muy aji wóor ma péng bi an nak naka yow yàlla te xuudu danga nga womat lii indil ma man borom tuba man naka say xéewal da nga ma naddil say xéewal bi xayri durun ci lu benn lor yow sun borom na nga xam ne daal yow kottu lay waxanteeg lii ma lay wax naa jotalal ma xaside gi nga xam ne yóbbal laa ko tuddee waaye nag na yegg ca. kaabatul musarafa ndax amoon naa yéene bi ñëw waaye am na lu ma gàllankoor waaye nag kon xasida gi moom laay def muy saadan bi kon nag na nga xamee ne yow dong lay waxanteeg te wóor na ma péng ne danga ma womatal danga ma nàddil say xéewal yuy bàyyi ko ci yow di ñëw ci man te benn lor ma ci fekk li may waxanteeg yow mooy xab na nga may li la si ñeel ka nga xamee ne jublu na bayti ka sa néeba alxaraami gëdd guñ xormaal na nga ko may afdala xajin gën ci xaj raajaan muy aji ñib bu dee beneen réew la dëkk maal am na ànd koog càkkutéefam la mu ne yàlla waxante gi may waxante yow wóor na ma péng ne danga ma naddil say may say may moom man dafa maa wóor péng ne yow sunu borom danga ma ko naddil léegi nag leen la lay ñaan mooy képp koo xam ne am na pas-pasu jublu kaaba ga ngir jox ko xorma ngir aj ko ndax dafa bokk ci ponk ci lislaam yi mooy juróomeelu ponk ci lislaam waaye yàlla santul ko képp koo xam ne mënul ko ku ko mën rek la ko yàlla sant mu ne nag na nga may képp koo xam ne dem na màkk rek na ko may aj ga gën bu ñib si itam na ànd ko càkkutéefam ndax màkk ku fa dem da nga fay yaakaar dara loolu nag boo demee sunu borom bu ko fajee fa tabarakallahu mu ngi noonu ndax yonent bi nee na aj guñ nangu maanaam dara dara nekkut ak payam lu dul aljana kon sa aj moom bu ko yàlla nangoo rek man nga ci amee aljana man nga ci am ak texe goo xam ne ak texe yi dootoo ko defati faw moo tax sëñ bi ne xaj bi xal bi taqabal wak fi ni xataan wal tamu say nii dégg nga wa kamil ni bi ma saara wa kamil ni bi ma saana wal tamu say nii wa kamil ni ma saana def naa wala qad këram naa bani aadama wax na ko fa mi wa jaxtu waji li ma takrimo baana nee na ko comme aju yu ma màkka waaye sama xol moom maanam aj gi nga xam ne moom la yéene mooy dem na ba nga nangul ko te fegal nga ko lépp luy njuumte yuy dal aji xaj ji kon lépp luy ñaaw ñaw dindi ko ko ci man ndax màkk boo fa demee day dindi lu ñuy wax saynu muy ñaaw ñaw yi nekk ci yow dégg nga yëpp da koy dindi moo tax sax boo gisee sëñ bi indi baatab baatab saynu saynu day xam ne kon nit ki saa bu demee am na fu muy toll ba dem mag ba ñëw war naa mën a dindi ci bopp na lu ñuy wax say say nii muy ñaaw ñaaw rawatina ku dem ba gis lu ñëw wax say bu muy béjjaaw nga dem ba màkk te ba ngay dem yóbbaale nga béjjaaw mu wóor na la ne yow li nga dund moo gën a bëri fuuf li ci des kooku ba ñëw war nga am kers ci def bàkkaar ndax am na lu la gani loo xam ne du ngeen tàggoo mukk même boo ko doon pintir sax du soppeeku muy béjjaaw bu la xasee gani si rek mooy am nga gan goo xam ne mënoo ko yekkal kenn dégg nga dootoo ko yàkkal kenn kon xaji bi xal bi taqabal wax fi nii xataan kon yàlla mayal ki dem ci sa kaaba gi nang ko may gën caaj waaye buy dellu si nang ko may càkkute fa mu am ko aroomu dana ma sàkku min ka ci yow bi rasulillahi ci darja yonentu yàlla bi ali yàlla doole nekk ci yonent bi xayru salawaatillahi ngën ci say julli yow yàlla yàlla maa ngi sàkku ci yow ci darja yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla nga julli ngën ci sa julli yow yàlla xawaa iji samay xaajo fal di yàlla nga faj ñoom yëpp ñoom xaajo yëpp bilaa dara turu benn lor wala xedan du caagin benn ak noonu wala xanan wala coono wala xarar wala ak woro yàlla li ma lay ñaan mboolem xaaja boobu mën a am yàlla na ko fajal ci saayir ak ca baatin. ma ko fajalee bu ci lor ànd bu ci benn noono ànd bu ci benn coono ànd bu ci benn waru ànd mudda tàllalal bi jaahil Mustapha ci daraja ka ñu tànn ka sala yàlla nga julli al ilahu yàlla muy buur ali ci kaw yonent bi bi taslimin julli gànd ko sëlmal kaafi yow mi aji fekk kulli laa lépp loo xam ne xëyti caaxaan la na nga may yonent bi yow muy buur maa ngi lay ñaan ci darja yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla na nga julli yow yàlla muy buur te yeyoo ak jaamu yàlla na nga julli faw te sëlmal ci kaw yonent bi faw yow mi nga xamee ne yaay aji fekk lépp loo xam ne xëyti caaxaan la yaa koy fegal sab jaam mu da na nga tàllal bii ci barkab yonent bi ilee jëmee ci man jumlatal karal mboolem samay xememteef wa atima yàlla na nga dollee matal niyati yéene bi ma am min xëyri maral ci benn xëyti tawat yow maa ngi leen ci barke bi yonent bi lépp lu may xemam yàlla na ko màng mu jëm ci man borom Tuubaa lépp lu ma yéedi ci àdduna ak sama digganteeg siyaar ji yonent bi sallallahu alayhi sama digganteeg wër Kaxbatul Musharrafa sama digganteeg lépp lu ma yéene ci diina te tàmbali ko yàlla na nga matal yéene la te benn tawat bu mu ci am mooy gàllankoor boo déggee ci loolu tawat mooy liy gàllankoor yéene nit ki dana yéene dara am lu ko ci gàllankoor tawat lañ koy tuddee ima yow mi aji sax ji te doo faatu sali yàlla nga sax dàkki julli bi salaamin gu ànd ko sëlmal laa yirim goo xam ne du dog mukk ala nabiika ci kaw yonent bi nga xam ne ki nga solo li wàcc ka ko def ngir sa jëmm ji alkarim ji ji tedd yow yàlla miy sax te doo faatu mukk li ma ñaan yàlla nga sax dàkki ak sëlmal goo xamee ne du du doog mukk na nga ko def rek ngir sa jëmm ji julli ko ci kaw yonent bi nga xam ne mooy ki nga jox xam ba ba nëpp yónni ko allahumma sunu borom woo naa la yaa xarib yow mi aji nangu ñaan ji salli li defee mooy yàlla na sax dàkkiri julli wa sallim te sëlmal wa barik te doolik barke ala sayidina ci kaw sunu sang bi wa mawlana tey sunu kilifa wa xalilina te doon sunu xarit wa habibina te doon sunu soppi muhammadin turu mooy muhammad waaye wàccal yàlla na nga def nag xaasil abiyaata yii ba abiyaat muy xasida gi bu saaratan mu doon mbégte moo xam ne laataan xatoo du dog mukk abadan faw loxoo jëm ci yonent bi sala yàlla na nga julli allah yow yàlla taala yow mi aji ko ali ci yonent bi wa ala ali ak ñooñam ñëpp wasan bi ak saabaam ya wasalama ta nga sërmal ci moom amin yàlla nga nangoo ñaan yaa rabal xaalamin yow yàlla ñu borom bi defi ba xasida gi jeexee mu ne yow suñu borom yow yaay buur bu tudd xarib mooy ku jege waaye yow yaay buur bi nga xamee ne yow yaay aji nangu ñaan comme nag yow yaay ku jege tey nangu ñaan te yaa ne udduhuni astajib lakum wa isa saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i isa daani kon leen rek laa lay ñaan ngir dangaa jege tey nangu ñaan damaa bëgg nga nangul ma ko dégg nga mu ne kon lenn laa ñaan te dama bëgg nga nangu ko mooy yàlla nga julli sëlmal te dolli barke ci yonent bi nga xam ne mooy sunu sang bi sallallahu alayhi wasallam di sunu kilifa turam di Muhammad sallallahu alayhi wasallam di sunu xarit ñun sëñ Tuubaa ñu nag yonent bi ay xarit lañ di sunu soppe turam di Muhammad yàlla nga julli ci waa këram ak saabaam yépp gannaaw ba nga ci moom waaye li ma leen ñaan nag mooy xasida gi abyaat yi na doon mbégte moo xamee ne du dog mukk di jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne xasida lay doon di jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow mi aji kawe nag maa ngi dagaan ci nga julli ci yonent bi faw ak waa këram a saabaam yëpp te sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla nga dangu ñaan yow yàlla mi borom bi defi ba tey mu indiwaat salaatul fatiha te mooy allahumma yow suñu borom salli yàlla nga sax dàkk di julli ala sayidina ci kaw sunu sang bi muhammadin turam mooy muhammad al fatihi moo di aji hubbi ji moom muhammad li ma ñeel la nga xamee ne dafa tëju woon wal qaati mooy aji mottali li ma ñeel yonent yi nga xam ne sabaxa jiitu woon nañ ko fi moom Muhammad naasiril haq mooy aji dimbale dëgg bil haq teg ko ci dëgg wal haadi mooy ki gindi nit ñi ila siraatika yow yàlla di leen jëmee ci sa yoon wi al mustaqimi yoon wu daa ji jub kocc wa ala alihi yàlla nga julli ci waa këram moom Muhammad moome xaqa xadar yi lu toll ni dëgg-dëgg dara jàmm wa miqdaar yi ak tolluwaayam ba alxasim ba daa ji màgg wam hu yàlla nga far xoyoo bi sama xan yi mu walis ma bi jaax yi ci darjaay Muhammad moomee sala yàlla na nga julli allah yow yàlla taala yow mi aji kawe xali ci Muhammad wa sallama ta nga ci moom xataa laa yëkkoon a dégg nga xataa laa ba dana nekk fii sayi fati ci sama biir téeréeg jëf ak akbari daaka lu bokkut ak gën ka màgg sa ngërëm bi kun fa yëkkoon ci barke kun fa yëkkoon amin yàlla nga nangu ñaan yaa rabbal alamina yow yàlla mi borom bindee fi mu ne yow borom yàlla nga sax dàkk di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne mooy sunu sang bi turam mooy Muhammad Muhammad li fi tëju woon lépp moo ñëw ubbi ko buntu yi tëju woon yëpp buntu jafe-jafe yi buntu weddi yàlla buntu bokkaale yëpp nga xam ne tabarakallahu dañ koo tijji woon moo ñëw tëj ko waaye lépp lu tëj woon ci lu baax itam yonent bi saa sax moo ñëw ubbi ko waaye yonent yi fi jiitoon yëpp moo leen tëj moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ki fekk dëgg mu yuuxu amul kenn ku ko xettali mu dimbali ko jaaree ko ci kaw dëgg yàlla yonentu boobu sallallahu alayhi wasallam mooy ki nga xam ne mooy gindi nit ñu réer ñi di leen teg ci sa yoonu jub bi ñu jaar ci te duñ jàdd mukk mu yoon wi nga xam ne amul benn jéng-jéng amul benn dëng-dëng yàlla nga julli ci waa këram julli ku toll ni dëgg-dëgg dara jaam gannaaw ba nga jullee ci am jullil ci waa këram julli ku toll ni dëgg-dëgg dara jaam loolu kenn xamul nu mu toll waaye nag buñ xoolee julli gi ba tey nañ xool tolluwaay yonent bi waxuma la darajaam ndax daraja ak tolluwaay yonent bi bokkuñu daraja la waaye tolluwaayam ba tey à part la mu ne buñ dajalee daraja yonent a dëgg-dëgg xaqiqa ba la cay ak baatin yëpp ñi dajale ko julli gi na toll noonu waaye tolluwaayam la cay saayir ak baatin yëpp julli gi na toll noonu waaye yàlla na nga far mu sëri ma sama ayib yëpp lépp loo xam ne ayib la te nekk ci man borom Tuubaa ñi koy tuddee ayib ci ma rek yàlla na nga ko far ci daal jaay yonent bi yàlla na nga julli yow yàlla yow mi aji kawe ci kaw yonent bi te nga sëlmal ci moom ba nga xamee ne sax sama téere jëf bii nga xamee ne kenn ku nekk am na téere boo xamee ne wa kullu insaani alsamnaaw ta'iruhu fi wa nuxrijuloo yawmal qiyaamati kitaaban yalqaahu mansuuran kenn ku nekk am nga téere jëf kere ba nga faatoo bañ dugalee ci ba bàmmeel rek dañ ko jël takk ko sa dox gi naka noonu booy dekk booy dekk moom ngay dekkaale te nag booy dee doo gis ñu takk ko ci waaye booy décret da ñu takk sa dox gi tabarakallahu nga xam ne boo décret da nga xam fi nga war a jëm ndax danga ngay gis ñu bind sa téere bi bu dee lu baax rek nga daan def lu baax rek nga fay fekk ak leer bu dee lu bon rek lu bon rek nga fay gis moom rek ngay sañ a jàng sa làmmiñ say cër moom rek la ñuy sañ wax yàlla ñu ci yàlla mooy su ko su ko defee nga xam ne yow mii kat tey sa dëkkuwaay jarul yàkkamti jarul yéex safar rek nga jëm boo dekki itam danga xam ne nag yow mii wallaahi al asim faw aljana nga jëm te doo ci am benn coono coono mu ne nag na nga def sama téere jëf maanaam dara bu mu ci nekk lu dul sa ngërëm li nga ko def ci barke ku fekkoon yàlla nga nangu ñaan yow yàlla mi nga xamee ne yaay borom bi moo tax sëriñ bi ne wam hu yàlla na nga far yow yàlla oyoo bi sama ayib annii mu sërima bi jaay ci darja yonent bi sala yàlla na nga julli allahu yàlla taala yow mi aji kawe ali ci yonent wa salama te nga ci moom ataala yekoona ba dana nekk gannaaw boo faree ayib yëpp fii sa ci sama biir téere xayra ak bëri daaka lu bokkut ak gën kaa màgg sa ngërëm maanaam daal sa ngërëm nekk waaye ayib loo xamee ne bi ñu ko gisee ci téereb ci téereb diw ñi xam ne kii borom safara la jëm même borom sax bu ko xoolee gis ko ci téeram day xam ne moom safara la jëm loolee yëpp nañ ko far ci sama téere jëf bu mu ci nekk sama téere jëf daal bu ñu ko xoolee nañ ci gis rek ñun tàmp ne ci kat ne jàmm kat ku yàlla gërëm la ndax mostu mooy yàlla moo tax ma xataa yi kon ba danaa nekk fii say fëdi ci sama biir téere jëf xayra akbar yi daaka lu bokk nag gën caa màgg sa gërëm gën kaa màgg sa ngërëm na ko def nag bi kun fayekoon ci baat bi tudd kun fayekoon mooy amal rek mu am am yàlla nga nangu ñaan yaa rabbil alamin yàlla bi borom bi def yàlla nañu ko yàlla defal kenn ku nekk ñun am na téere jëf kon nag lii sëñ bi ñaan lu mat ñaan la mooy fexe di ñaan yàlla sa téere bi nga xam ne mooy sa téere jëf nga fexe loo gàlli lu baax li lu bon li donte lu bon mëntu ñàkk loo gàlli gàlli lu baax li lu bon li ndax lu baax li moom soo ëppee lu bon rek da nga am yaakaar xam nga sëñ be nga am na xasir yoo xam ne da koy jagleel lu mel ni ñaanal ñaari way juru boo demee ci xasee gu tudd wa say naa liñ saana da nga da nga fa dégg mu ne naqi sahi fatayhima min kulli ma yesoo maanaam sama ñaari way jur buñ jekkee ëllëg yawmal setal seen jëf ba duñ fa gis lenn loo xam jëf dana leen métti wala mu dee leen naqari kon kenn ku ci nekk loolu war na ko bàyyi xel di ñaan sa jëf buñ ko xoolee maanaam mu fekk ñi tàmp na ci ne kii kat jaam la bu gërëm kon nag yàlla na ko yàlla defal ci barke kun fayakun amiin yaa rabbal wan sur yàlla na nga wisaare sa barke sa barke yow yàlla bi muhammadin ak barke muhammad wàccaal yàlla na nga def xaasil ab yaata yi bayit minal baqiyaati mu mu bokk ci al baqiyaatu asaalihaati yéda yooyu yiw te duñ jeex mukk ba pincib yàlla abadan faw mu ne yàlla yàlla na nga wisaare sama kaw sa barkeeb tur wi di allah ak barkeeb tur wi muhammad maanaam barke bu nekk ci yàlla ak barke bu nekk ci yonent ko wisaare sama kaw loolu yëpp yàlla defal na ko ilee xutta barakaati laahi la wax nee na suñu borom barkeem la ma xapp la wisaare sama kaw dégg nga naka noonu ci xasida ak mafaatiwul jinaan ya un babtu dégg nga ko fa nee na sunu borom wala yumnuhu nasar lam anhu maalam yu fa di maanaam sunu borom barke bi nekk ci yonent bi yàlla moo ma ko sëmbaxtal moo ma ko wisaare kon yàlla nga wisaare sama kaw sa barke yow yàlla ak barke Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaye xasida na nga ko def mu bokk ci minal baqiyaati saalaati mooy loo xamee ne aw yiwam du jeex mukk al baqiyaatu saalaatu sunu borom day wax ne al maalu wal banuuna ziinatul hayaati dunya moo ñu waxal ne albaqeet salaatu moo gën alal yi adduna ak doom yu góor ak yu jigéen albaqeet salaatu moom du jeex mukk ci adduna ak alaxira moo gën ci yool moo gën ci lu nit ki di mbébét ci adduna ak alaxira kon albaqeet salaatu mooy lii subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa wala kubar nga xam ne yonentu sallallahu alayhi wasallam nee na li gënal jàmm bi saa bu xëyee fajar mu di ko wax ba jant di fenki mooy baat yooyu rawatina nag saa boo jullee nga di ko wax na fanweer ak ñett moo xam nga wax subhanallah fanweer ak ñett wala alhamdulillah fanweer ak fanweer ak ñett wala ilaha illallah wala koor fanweer ak ñett tabarakallahu nga di ko toftale noonu subhanallah fanweer ak ñett walhamdulillah fanweer ak ñett wala ilaha illallah wala akbar fanweer ak ñett nga di ko toftale noonu saa boo jëlee waxtu julli wu ne nga di ko def loolu tabarakallahu ku deful ni nga def rek yaa ko ëpp yool fa yàlla yaa ko gën a diis balaas ba ëllëg yamal xiyaamee sa balaasu misaan ba kon nag yàlla nga def abyaat yi bokk ci minal baqiyati salaatu abadan xasida yi moom minal baqiyati salaat defe naa booy jàng xasida gu mel ni nooru daaree ni sax xam nga boo da ngay dégg mu ne na nga def xasida gi nooru daare ni muy albaqaat saalaat waaye nag bu mu dëñ sax ba gën a féetee kaw al albaqaat nga xam ne kon xasida mooy lu kenn xamut albaqaat saalaatu yiw yëpp mag ñëpp ñu baax ñëpp ci lañ daan njëkkalante yiw yi ndax bi yàlla ne wal baqaat saalaat xayrun xayrun la wax xendara bi ko sawaaban ba noppi na wax xayrun amalan kon moo tax mag ñu baax ñëpp lu yàlla yëpp saxaaba yi sax moom lañ daan njëkkalante moom la ëppoon ci luñ daan jaamu seen borom dégg nga sëñ Tuubaa nee na sama xasida yi maanaam ñoo féetee kaw sax ci payoor ci aw yu albaqaat saalaatu kon xasida leneen la xasida gi ba tey mi ngi ko tënkee allahu muhammad mu tàmbalee ko allahu muxnin waasixon wa samadu alayhi jalla wa ala ahtamidu lahu tawajjaxtu wa saara alqaladu mutayaban bihi wa baanal jaladu allahu yàlla ca dëgg-dëgg muxnin mooy aji doylu ji waasixen tey aji yaatu wasamadu don kilifa boo xamee ne mooy ki ñëpp jëmale aajo te moom yàlla jublul aajo jëm ci kenn. yàlla moom nag ah tamit danaa sukkandiku ci moom jalla moom muy aji màgg waxalaatee aji kawe. li wóor te wóor daal maa ngi leen di wax man borom Tuubaa ne yàlla mooy Allaahu mooy turu jëmmam ji mooy ki nga xamee ne mooy muxnin mooy ku doylu ba soxlalu daray kenn ak lenn dafa doylu ci boppam mooy ku yaatu koo xamee ne ñëpp xaj nañ ci moom. te moom xajul ci kenn yàlla mooy sang bi nga xam ne kilifa gi nga xam ne ñëpp mu jëm ca moom te moom màmmu jëm ci kenn yàlla moom mooy buur bi nga xamee ne man sëriñ bi jox naa ko sama lépp tawakul ko ca moom bàyyee naa sama lépp yàlla moom muy aji màgg ji te aji kaw daal jox naa ko sama lépp su ko mu tàbbal ma ci muxnin tàbbal ma ci wasion tàbbal ma ci samadu dégg nga fu muy waxee ne jël naa sama lépp jëlee dugal ko ci biit fii saati samadi ci biit jëmmi suñu borom jooju nga xam ne moom la tujjee samadu ci biit saat saar nga xam nga boo ko tijjee am na lu fi xaj ga nga fee bind dara dégg nga loolu xawaatimkat yi xam nañ ko sëriñ bi nag ni saar gi mel dafa mel ni dafa dugg ci biir saar gi nii rek ñi tëjaale ko ci mënu cee génn mu ne la hoo tawa jontu wasaaral xaladu mu tayaban bihi wa baanal jaladu mu ne suñ borom moomu la hoo ñel na ko moom kot kotu tawa jontu sama jublu wasaarati mujj na alxaladu xool ba mu tayaban doon lu ñu teeyal bihi ca yàlla wa baanata leer na nañi aljaladu muy ñeme coono ga ñeme musiba ya ñeme naqar yi nga xam ne moom la ma yàlla teg ndax xol mooy mel noonu lu ñuy wax jaladu arab bu waxee jaladu mooy koo xamee ne dafa ñeme maanaam musiba yi dal ci kawam maanaam as sadiidu ala taxamulil makaari wal masaay bi moom naqar ak musiba yi ki nit ñi da teg du ko tax a deltu gën a mukk maanaam daal lu am rek ci xolam la koy supporteree buñ ne jaladu ala tambalil makaari mooy kaana saa salaabatin wa sabrin maanaam dafa dëgër mën a muñ maanaam ci xenu naqar yi nga xam ne ñoo dal ci kawam. loolu nag xol bu teey rek ci digganteem ak boromam bu ko jàmm bi amee moo ko mën a may nit ki kon sëriñ bi xolama teey ca boromam moo tax nag naqar yu ko yàlla di teg mu di ko mën a dékku di ko mën a muñ moo tax mu ne borom moom dong jublu di jëm ci moom. wasaare mujj na alxaladu xol ba mu tayban di lu ñu teeyal bii ca yàlla wa baana te leer na naaj ñi wa baana biir na aljaladu mooy ñeme musiba yi ak naqar yëpp mooy ci man ko yenu ci lu ko yàlla di teg kon loolu la ko may mooy wasaare alxaladu mu tayban bii law xitaabi inda qawmin jahado wax wal alimu wa saborul ahadu gis nga sax moom lay wax ne mu ne loxoo na ko mom yàlla kottu kottu xitaabi sama waxante ak moom inda qawmin fa nit ña nga xamee ne jahado ñoom ñëpp weddi yàlla wax wate moom yàlla moom may waxal alxalimu mooy buur bu leet bi wa sabuur tey mu ñàkkoon bi al ahadu tey kenn yàlla moom ba ma nekkee ci nasaraan sa nga xamee ne ñoom ñëpp dañoo weddi yàlla ma nekk fa man kenn dong doon ab julit ba noppi nag tabaarakallahu doon fa nit ku ñuul nee na yàlla moom moom dong laa doon waxante ci samay xalima ci di ko jaamu te di daaneel gépp xëram ak lépp lu ñuy bokkaale yàlla ma di ko daaneel ci samay xalima yàlla moom nag bi ma nekkee ci seen biir ñu ñëpp wedd lu tax mu tudd xalim ak ak ahad mooy ba tey la waxoon ci xasi rek yaa jumlatan rek akrin lam yuwaqisum akrim bi rabbin lam yuwaqisum bi ma kasabu huna wa huwa saburul majidu xam nga yàlla foofu loolu rek la fa mën a tudd diggante sëriñ bi ak nooy mi ngi ko yóbbee ci géej gi ñoom ñëpp yëddi sëriñ bi nekk fi rek ab julit ba noppi xoolal mbooloom lëmm ñoom ñëpp yëddi yàlla yore kenn koo xam ne moom rek mooy wéetal yàlla te nag bu neexoon yàlla ñoom ñëpp mu fàtt leen waaye lewet gaa waral ak mën a muñ ga moo tax mu bàyyi rek ndax loolu mooy li olof di wax ne am na sàcc yoo xam ne jaru yàq sa nelaw bàyyil ba yeew rek jàpp leen ndànk nit ku li muy mooy mooy yàlla bis bu duggee ci bàmmeel bi rek na xam ne moom foofu moom kenn mënu faa rëcc yàlla yowmal qiyaam kenn mënu faa rëcc yàlla fi nag mën nga fee nekk defe ne tabaarakallahu mën ngay rëcc yàlla waaye nag sàcc boo xam ne tabaarakallahu lu mu yàgg-yàgg na nga ko jàpp kooku jarut jarut yàq nelaw mooy akrim bi rabbil lam yuwaaqisun bi ma kasabu haawuna wa wasaburul maajiru kon moom ba mu nekk ci ñu widdi yàlla moom rek moo fa gëmoon yàlla bu neexoon yàlla mu alak noonu ya comme dañoo weddi yàlla te defaat nañ beneen tooñ mooy tooñ nañ sëñ Tuubaa waxuma la sax weddi yàlla waaye mais tooñ nañ sëñ Tuubaa yóbbu ko ci géej gi waaye yàlla tudd seen biir xalimu sabooru aaru bàyyi leen rek seetaan leen mel ni ku leen fàtte te fàttewu kat yàlla nee na fàttewu leen de wowal xalimu saboorul ahadu mu ne kon yàlla ñeel na ko sama waxante ak moom ba ma nekkee ci nit ñi nga xamee ne ñoom ñëpp dañoo weddi yàlla moom laa doon waxanteeg di ko wax sama soxla yàlla moom mooy aji lewet ji tey aji muñaakoon mooy sabóor mooy ko xam ne day sax rek di muñ borom xam-xam sax wax ne ñaari tur yi moom la fi yàlla bàyyee mooy kati yàlla yi te alagut leen wal xalimu wa sabóoru al ahadu te mooy kenn. ndax moom la wàcc ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo rot ci alquran te tur wi njëkk mooy allahu wi ci mujj mooy sabóoru loolu dana jàngale kon yàlla kon sabóor la su fekkoon ne lu xaw ci pinc mi rek mu alak ña ko def konoon tuddut sabóoru ndax xeetu njëkk yi lañ defaan rek dégg nga ca sansa yàlla alak leen waaye nag yàlla xeetu yonent bi sabóor la tudd ci ñoom habli ya rabal wara ya samadu bi jaahi man sumaatuhu muhammadu hab mayal lii ñeel ma yaa rabal wara yow mi borom bi ndef yaa samur yow mi kilifa gu ñëpp jëmale aajo to kenn te jublu aji jëm ci kenn ya samur yow mi kilifa gu ñëpp jëmale ay aajo te jublu aji jëm ci kenn bi jaahi man ci darajaay ka nga xamee ne sumaatuhu tuddee nga ko muhammadin turam mooy muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla ma may yow mi borom bi ndef yaay kilifa gu ñëpp jëmale aajo tu jublu ak jëm ci kenn maa ngi la koy dagaan ci darja yonent bi sallallahu alayhi mi yi nga xam ne yaa ko tuddee Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon Muhammad yàllaa ko ko tuddee waaye nag dafa ñëwee ci anamuk enkiwal xam nga yonent bi biñ koy tudd di ko di ko rendil ab gàtt ku ne xam ne ne jamono jooju maam Abdou Moutalib moo fa nekkoon waaye maam Abdou Moutalib fan la xamee turu Muhammad même sax moom ñi ko tuddee Muhammad ba mu paree bañ ko ko laajee dañ na ko def nga xar baax kat ndax tur yi mosuñ koo dégg lan nga ci jublu mu ne damaa bëgg waa asamaan suuf ñëpp ak adduna sëpp di ko sant Muhammad mooy ku yàlla sant ay mbiram yëpp te booba mi ngi doog a judd bees yàlla sant na ay mbiram lépp. moo tax bi mu ko tuddee tabaarakallahu Muhammad ñi ne ko def nga xar baax arab yëpp ba ci noonam yi nekkoon Makka buñ bëggoon woo yonent bi ñi xam ne buñ ko woowee Muhammad ndax xam nañ Muhammad lu muy tekki ñoom ñëpp dañ ko woowee safaan bi safaanu Muhammad lañ ko woowee maanaam mooy ku ñu ŋàññi xam nga ku ñu sant ak ku ñu ŋàññi ku ñu mooy safaan ba mooy al musammam mooy koo xamee ne dañ koo ŋàññi ci biir activité Muhammad nag mooy kuñ sant ci biir activité waaye waa Màkki bu ñu waxaan loolu yonent bi yonent bi woo Seydina Abubakar Sidiq na ko xoolal waa Màkki nu man yàlla ci boppam moo ma seetal tuddee Muhammad ñoom na safaanu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom lañ may tuddee te man yàlla tuddiwut ma loolu kon loolu euh, setal gëntu set loolu seetal gu yàlla setal kenn mënu koo tëqal waaye mbindeef yëpp bu la bokkoon di la seetal te yaa ngi tëq itam kenn tabaarakallahu tabaarakallahu kenn moom laa seetal mbindeef yi lu ñu la seetal seetal te yaa ngi tëq na nga xam ne kooku setagoo de waaye yàlla bu la setalee rek set nga bu ñu la doon tëqal kenn du la tëqal kon yàlla nag ma may xab ma yàlla ñal ma yaar bal wara yow muy borom mbindeef yi yaa samaru yow kilifa gu ñëpp jëmale aajo te jublu aajam ci kenn bi jaahi man ci darjaay ka xam ne su maatu yaa ko tuddee Muhammadu mooy Muhammad musalliyan mbir moom ngay aji julli ci moom ma salaamin gu ànd koog sëlmal yaxludu góog dana sax alihi ci moom bil ali ànd koog ñoñña wa man tajaladoo ak saaba ya nga xamee ne fuñ tolluwaan rek dañ daan góorgóorlu dégg nga te ñeme coono ñeme ak muñ li may may nag mooy xattaka sak sippil xan mu sëri ma maa yëji u lépp loo xamee ne dana dikk ci man alkaburu doon ay dang-dangi ak coono lépp nag ma ko sippil bi ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa tabsiraka waaye nag li may may mooy say be sak bégalee bii ci sama jëmm ji man xabu doom mboolem ñi nga xam ne ay jaamu ko ci yàlla moo xam ñu wëy ak ñu teew ak ñu ñëw la waxoon xable yaa wara moom la wax ne gannaaw sàkkoo ci yàlla na ko may ma mu tagg yàlla na ko yaa rabal wara yaa samadu waaye dagaanee ko yàlla bi jeexi man sumaatu mahamadu na ko nag neexalee ko musalliyan ma asalaamin yaxludu alay bil ali uman tajalado doo ko wax nag soxlaam moo ramale Sëriñ Tuubaa dafa xam fu muy jaar yàlla nga xam ne mënoon naa na ko yàlla may ma nangam waaye bala ma wax yàlla may ma nangam dane ko yaa rabal xam nga yàlla bég ne mu ko yaa samadu yàlla bég na mu dellu waxal ko beneen boo xam ne moom yàlla day gën a bég bi jaayi man sumaatu mahamadu ndax yàlla lépp waaye yemut mu ne ko musal yan maasalaam ni ba noppi nag yaxludu na nga julli balaa balaa maa ñaan-ñaan gi na nga julli ba noppi sëlmal goo xam ne day sax faw ci yonent bi ak waa ak ña nga xamee ne ñooy saxaabaam mooy tajjaladoo ña nga xam ne dañuy góorgóorlu ci waxtu na te ñemee ak muñ ak musiba yëpp ak naqar yëpp ak coono yëpp dañ koy ñemee yenu mu ne ko nag nag ma sippi lépp loo xam ne xeeti njàqare lay doon di ñëw ci man di doon ay jafe-jafe ak coono ak musiba ci man ak dang-dang yi nag ma ci musal ci barke yonent bi sippil ma ko waaye nag mboolem ñiy jaamu yàlla ñëwee ak ña teew ak ñuy ñëw ñëpp ci na nga leen bégle ci sama jabu ji sëñ Tuubaa koo mën a doon su fekkee yàlla ñor na la da nga koy bigee xaw ma nag kanaa ki yàlla ñor waaye ki yàlla ñor moom da nga bigee sëñ moo tax na mu ne li ma lay ñaan nga meme ko mooy xattaka sax sippi la ani mu sëri ma maa ngi jiw lépp loo xam ne dana indi ci man alkabudu dang-dangi muy coono nag ma ko sippil maam daal coono na jeex ci man bis ni tey nag ma ko def bii ci barkab yonent bi waaye nag wa tafsir ka na nga bégalee waaye maa ngi lay ñaan sag bégalee wa tafsir ka sag bégalee bii ci sama jëmm ji borom Tuubaa man xam ne ay jaamu ko ci yàlla képp koo xam ne day jaamu yàlla te yàlla ñor ko rek da nga bëggee sëñ Tuubaa mu ne ko yàlla mu damm ko siya bi sax yin yuxmadu bi hurmatil mii may ni yaa man ahmadu mu ne mu dana nga tàllal mu ko siya sama sax bi sax yin ci jëf joo xamee ne yuxmadu goog santes nga ko bi hurmatil mii may ni ci xormaay ñaari mimi muy miim ak Muhammad ga dégg nga ak miim ga nga xam ne dañ ko sàdd kooku ñaari miim la Muhammad dëgg-dëgg am na miim goo xam ne ñaari miim la booy xool turu Muhammad ñaari miim la waaye déedéet du ñaari miim de am na miim goo xam ne ñaari miim la ndax dañ koo sadd Muhammad kon loolu mooy miimay ni miim guddee bu la neexoon sax mën ko def ñaari miim miim gu njëkk bu la neexee nga ko def ñaari miim geneen miim nga def ko ñaari miim kon loolu mooy bi xurmatul miimay ni muy jublu si rek turu Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo tax mu ne ko nanga nga tàllal sama sax mooy daal jëf ji ma nekk ci na di ko jëf na doon jëf joo gërëm te sant ko ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi yow mi nga xamee ne yaa ko sant ci biir activité kon mudda na nga tàllal mu koosee sama sax mooy sax gi ma nekk cërno di jaamu yàlla na nga ko def yépp di sax yin muy jëf joo xam ne yoo xam santes nga ko bi hurmatil mii may ni ci xormaay ñaari miim ya te mooy Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaa man yow mi xam ne Ahmadu santes nga ko yow mi sant yonent bi ci biir activité daal maa ngi lay ñaan fan yi ma nekk ci àdduna at yëpp weer yëpp naa jëf-jëf yoo xam ne yëpp da nga koo gërëm sant ko ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam na aliye bi la ci laa yenn fadu dégg nga bi jaahi man bihi ilaykal afidu mun na yow sunu borom xéewee nga alee ci man billa si loo xamee ne sax laa yéen fudu du jeex mukk bi jaahi man ci dara jaay ka nga xamee ne afidu danaa baagantu du njëkkantu bihi ci dara jaam ilayka jëm ci aw yàlla may nga ma loo xam ne du jeex gis nga yàlla nee na maa hindakum yan fadu wa maa indallahi baaqin sëñ bi nee na yàlla may na ko lu jeex bu dee ceeb na li ko yàlla may du jeex yowmal xiyaam la ko fa yàlla may du jeex fan la ko jëlee moo jar a laajte mu ne bi jaahi man bii ilayka axfidu foo ko fekk rek mu ngi njëkkantu sëñ bi amatoon jot al axfidu buñ ko waxee mooy asraha ilal xitma mooy ko xam ne foo ko fekk li ko tax a jóg rek ca la nekk bu dee julli ya bu waxtu woo jotee bu jotut ma ngi koy waaj ma ngi koy def lépp lu ko yàlla sant rek ma ngi koy def ma ngay njëkkantoo jëm ca fastabiqul xayraati ya aynamaa takuunu yaatu bikumulaa jimaan lépp ma nga ca fafiroo ilallaahi saabiqoo yi yëpp ma ngay course rek jëm ci lu baax moo tax ñooñu ñëpp yàlla boole tag lañ innahum kaanu yusaaruuna fil xayraat wa yad'uunanaa raqaban wa rahaban wa kaanu lanaa xaashi'iin kon ñooñu yàlla tag na leen te moom lépp eh, ilallahi bil qur'aani wa sunnati lati hadatni saraftul kulla wal qalbu qaasi'un ci loolu rek ci la nekkoon alquran ak sunna kon yàlla nag ma xéewalee loo xamee ne du jeex mukk ci darja yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xamee ne waxtu ne damay baagantu di jëm ci moom di ko julli di tagg nga xam ne tagg yi muy def ak julli yi ne ci yonent bi la jëm waaye ci yàlla la jëm waaye foof la mën a jaar yonent bi ba yegg ci yàlla moo tax mu ne ko mun na xéewee nga alee ci man bi la ci ci loo xamee ne laa yéen fa du jeex ti mukk bi jaay man ci dara jaay yonent ba nga xamee ne en fait danaa baagantu di njëkkantu bi ci dara jaam ilekk jëm ca kon lépp lu muy jaaree ci yonent bi ci tàgg ko julli julli ca moom rek kooku bëggu dem ci yonent bi ci yàlla bëgg dem waaye yonent bi dafa xam ne mooy bunt bi defe naa ne bu ñu doxaatee kanam tuuti ci xasida yi ci kanam da nga dégg mu ne wa kullu maxluqin si waaye yan fadu kurun man rek da jeexal yi joodu leen jawaadu maa laa yan fadu wa kullu maxluqin si waaye yan fadu yàlla muy tabiwaakoon bi may na ma loo xam ne du jeex mukk te képp ku yàlla sàkk nag kooku da nga jeexal ba mu des man bu ñu doxee tuuti da nga gis mu wax ko iya yow sama ñaan yow sunu borom duha ya sama ñaan istajib nang ko nangu wasali yàlla nga sax dàkk di julli sama di yow yàlla muy kilifa gi alal la bi nga xamee ne wax tamit danaa sukkandiku bii ci dara la ko jëm ci yow yow yàlla lépp lu ma la mën a ñaan ak lu ma la mos a ñaan rek nang ko nangu yow yàlla yàlla na nga julli yow muy kilifa gi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne man borom Touba waxtu ne ci yow laay sukkandiku waaye lépp lu may def rek taw tawakkul gëg lépp ci barke bi yonent bi ci laa koy jaaree. kon mbindeef bi lépp lu muy def rek pour mu jaaree ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam day gën a gaaw dégg nga mooy tax sax yàlla nangu ko ak jëf ju mën a doon alal si lakka bi en kon xajri googu jeex na ni mu ko tàmbali woon salaatul fatiha ba tey noonu la ko tëjaatee salaatul fatiha mu ne allahumma yow sunu borom salli yàlla nga sax dàkk di julli ala sayidina ci kaw sunu sang bi muhammadin turam mooy muhammad alfaati mooy aji hubbi ji lima uxlaqa ñeel la nga xamee ne tëj woon na wal xaati mooy aji mottali lima sabaqa ñeel yonent yi fi jiitoon moo leen tëj naasiri làq mooy aji dimbale dëgg bi làq jaare ku ci dëgg wala hadi mooy aji gindi mbindeef yi ñe ilaa siraatika jëmee leen sa yoon wi al wa daa ji jub ko ci wa ala ali yàlla nga julli ci waa këram ñëpp xaqa qadarihi julli gi toll ni dëgg-dëgg darajaam wa miqdaar yi ak tolluwaayam ba alaasi bi daa ji màgg allahumma yow sunu borom salli yàlla nga sax dàkk di julli ala sayidina ci kaw sunu sang bi muhammadin turam mooy muhammad wa sallim ta nga salmal ci moom kon day wane rek ngëneelug salaatu gi nu mu bëree ngëneel moo tax mu t ko ko ko yow sunu borom yàlla nga sax dàkk di julli ci yonent bi nga xam ne mooy sunu sang bi turam mooy Muhammad mooy ki nga xam ne li fi tëju woon te mu naqari tijji lool moo ko tijji moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ki nga xam mooy ki tëj mboolem yonent yi fi jiitoon kenn dootul ñëwaat ci gannaawam mooy ki fekk dëgg mu yooxu mu jaar ci dëgg ba yëkkati ko mooy kii gindi ñi nga xam ne dañoo réer di leen teg yoonu siraatal mustaqim bu jub wi nga xamee ne amul benn jéng-jéng yàlla na ko julli ci waa dëgg-dëgg julli gu toll dëgg-dëgg dara jaam moom bi ak julli gu toll ni dëgg-dëgg tolluwaay bu màgg ba yow borom yàlla nga sax dàkk di ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam sunu sang bi turam mooy Muhammad sëlmal ca kon mu indi xasida koo xam ne ba tey da tënkee allahu mahamadu mu indee tarjumaan ji njëkk ji mu tàmbalee allahu asaba ani kulla taxmiini wa bil baqa jaadali fadlan bi taamini lahoo sukoori ala xayril wara wa ala ruuhin yubassiruni tabsira taamini lahoo xitaabiya wal asmaani muxbilatun lii sarmadan wa liman bi taamini haddaytani bi rasulillahi yaa maliki wa bil muna juttali ma xayri taamini waaye ma xawta bil mustafa alayhi min ka sala man mawtiya dahra saa xuldin bi taamini xasafta mawtiya fii daareni mun xasifan bi jaahi man matuhu yaati bi taamini madattali samanan yaati bila adadin wala intihaa in bi taxribin wa taamini madattali lmuntaqa fawqa almuna abadan xani wali kunta bil maahi bi taamini dafanta anni al asa wal mawta fi abadin wa bil baqaa juttali lan bi taamini daa fa kubar xool xas li ci gën a yem mooy baat yëpp bind yëpp taamini la ñuy daanee bind boo mën a jël rek maanaam taamini moom lay daanee bam jeex allahu muhammad gi yëpp bu jëlee alif allahu go laam gi ak laam laam gi ak haa jël miim ak muhammad gi ak haa gi ak miim ga mu def ko ñaari miim ndax dañ koo dañ koo sàdd ñaari miim yëpp naka noonu taamini la ñuy daanee ba tey deel gi itam muy bëy bi ci mujj taamina baatab taamina guy tekki sécurité moom la daane. mu ne allahu yàlla asaaba dàq na animu walis ma man borom Tuubaa mu sëri ma kun la tax miini lépp loo xam ne lu géem la buñ la tax miin mooy lu ñu tuddee ay sukokat ay abatil ay waxmu ay sikk sàkk ak neen ak defle luy nekk ci xolum nit ki mu ne yàlla dindi na ko ci man moo tax mu ne yàlla dàq na mu sëri lépp loo xamee ne tax mi la mooy lu nëbb mooy lu gémm moo xam sikk sàkk la ak lu mën a doon rek wala nëbbu dëgg wala njort lu ñaaw lépp loo xamee ne safaan la daal te mu doon loo lu nëbbu la rek jaam di ko def moromu jaamam yàlla setal na ko sama xol. allahu yàlla asaaba dàq na ani musarima ku la tax mi ni lépp loo xam ne lu nëbbu la te doon lu bon mooy lépp loo xam ne lu géem la lu nëbbu la taxay lay jural borom ci xolam su fekkee génnul ko ci xolam ndax ayib lay tudd wala sikk sàkk wala def la wala ak neen wajaada tabina lii ñeel ma bil baqaa ma di fi des man borom Tuubaa fatlan ci ngëneelam bi taamini waaye des gi dafa ànd ko sécurité muy kaaraangeem mu ne yàlla ba tey may na ma ci mbaaxam ci ngëneelam ma di fi des man borom Tuubaa waaye des gi dafay ànd ak sécurité yàlla mooy kenn du ma mën a lor am naa assurance am naa kulleté sama digganteeg nit ñi sama digganteeg sama bopp sama digganteeg sama borom tabaaraka taala yàlla bi mu dindee ci man ku la tax mi yàlla moom loxo na ko moom kottu sukóor yi samay cant ak i gërëm ala xayril wara ci kaw ngën ci midéef sallallahu alayhi wasallam waxala ruuxin ak ci ruux gi nga xamee ne yu basiru ni dana ma bégloo tabsira taamini mbégteem li nga xamee ne moo di sécurité mu ne yàlla moom dong lay sant ak i gërëm dégg nga ci ngënt ci mbindeef sallallahu alayhi wasallam ndax sama diggante ak moom ni mel diggante bu ratax la diggante bu rafet la waaye ba tey moom lay gërëm sama diggante ak Seydina Jibril kon sëriñ bi ni mel ak yonent bi noonu la meltoon Seydina jibril yàgg na dikkal borom tuba ba tàyyi dégg nga daan na jàkkaarloo jëmm ji léeg-léeg sax mu soppeeku kenn ci taalibi yi taalibi borom tuba yi dikkal borom tuba kon jibril ana ñan moo ñooy wax ne maanaam du ñëw mukk ci gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah, kay dana ñëw am na ñu muy ñëwal waaye nag ci melokaanu nit dégg nga ndax yonent bi sallallahu alayhi sax même li ëpp ci la ko jibril ñëwal ci melokaanu nit ku ñuy wax dixiyatul kalbi bu bëggaana ñëwal yonent bi ci melokaana boobu la koy ñëwal dégg nga kon yàlla moom dong lay sant ak gërëm ci sama diggante ngën ci mi def ak ci roogu sell gi jibril roo lañ koy wax muy rooxu la ndax rooxu rooxu yàlla la roo gi nga xamee ne waxtu ne daf may bégloo mbégteem loo xam ne secret jibril waxtu ne daal daf may fiiw ñu di ma dikkal di ma bégal di ma wax ne daal sa borom defal na la sécurité faw loolu mooy bégal gi jibril da bégal sëriñ bi mooy dafay ñëw di ko bégal di ko wan ne ko daal am nga sécurité ci sayr ak ci baatin loolu waral nag nee ne mu jël xalimaam na yàlla maa ngi lay sant ki gërëm ci ngën ci mbindeef ak ruu gi nga xamee ne muy jibril waxtu wu ne daf may bégal mbégte moo xam ne mbégteem sécurité la. laxoo ñeel na ko moom yàlla xitaabee samag waxante ak moom wal asmaani te mbir moom njëgga muxbilatun aji jublu la lii ci man sarmadan faw dégg nga wa ab xa dégg nga dégg ba tey moom yàlla dana ma saxalal dégg nga vitamine yi ànd koog li nga xam ne moo di ak sécurité mu ne yàlla moom dong lay waxanteeg di communiquer ak moom aw ma joti wax ak kenn mboolem la ma jaayantoon ak moom njëg gi mi ngi daw di babbeeku di bàyyi ko ci moom di ñëw ci man. te yàlla moom daf ma fa bàyyi ma di fi sax waaye sax gi day ànd ak sécurité xam nga fi waxoon ne wa bil baqaa jaadali fadlan bi taamini fii mu ne roohin yu basiruni tafsira taamini dégg nga fee yàlla da koo defoon ci ngëneelam muy sécurité ga fii nag Jibril bégal gim koy bégloo muy tafsira taamina mbégteem sécurité. fii mu ne wali man ab xaabi taamini yàlla ci boppam moo ma fi bàyyi madi di fi sax mais ànd ko garantal ma sama lépp ci sécurité. moo tax mu ne la woon ñeel na ko xitaab yee sama waxante ak moom wal asmaani te mbir moom njëgg muxbilatun aji jublu la lii jëm ci man ma sarmadan faw wali man ñeel ka nga xamee ne ab xaa dana ma fi dana ma fi saxal ma di fi des te mooy yàlla bi taamini ànd koog sécurité kon daal waxante gi yàlla moom nga xam ne moo fi bàyyi ma di fi sax ànd ak sécurité. te njëgam waxtu wu mi ngi jublu di bàbbeeku di tukkee ci moom ñëw ci man kon daal yàlla moom rek lay waxanteeg mu ngi koy waxanteeg moom naan ko te hadaytani bi rasulillahi ya maliki wa bil munajjuta li ma xayri taamini waxante gi moo nekk nii mooy hadaytani gindil nga ma sa bopp bi rasulillahi ci daraja yonentu yàlla bi yaa maliki yow yàlla mi nga xam ne yaay ki ma moom wa jutta tabe nga lii ñaan ma bil na li nga xam ne moo di sama mbébét maa xayri taamin ànd ko ngën ci ak sécurité. yàlla man borom Tuubaa yaa ma orienté gindi ma ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow mi nga xam ne yaay ki ma moom ci barke bi yonent bi daal ci nga ma gindee le ma ci yoonu siraatal mustaqim yàlla ba tey may nga ma ci barke bi yonent bi la mu doon bébét yépp waaye sécurité bi gën ci sécurité yi gay defal sa jàmm moom nga ma defal man borom Tuubaa mahawta ba tey far nga bil Mustafa ci darajaay ka ñu tànn ka mahawta faree nga bil Mustafa ci darajaay ka ñu ali yàlla doole nekk ci Moustapha moomee min ko mu tukkee ci yow salaaman sa julli ak salmal li nga far mawtee mooy samak faatu ak dëxra diirug jamono saa xul din may borom sax te du ma faatu mukk vitamine ànd koog sécurité ba tey. yàlla faree nga ci barke bi yonent bi nga xam mooy Moustapha sallallahu alayhi maa ngi dagaan ci Moustapha moomee nga xam ne dégg nga ci moom ci nga faree ci darajaam sama faatu gi ma waroon faatu léegi dootuma faatu te dama fii sax ànd ak sécurité yàlla may na ma ko waaye may ci barke bi yonent bi mu ne nag maa ngi dagaan ci yow na nga julli ci Moustapha moomee waaye julli goo xam ne day lëkkaloo ak sëlmal na nga julli ci Moustapha moomee julli gu lëkkaloo ak sëlmal yow mi nga xam ne ci darajaay Moustapha ci nga falee sama faatu dootu dootuma kuy faatu te mukk diirug jamono dama fi sax ànd koog sécurité kon nag maa ngi dagaan ci darajaay Moustapha moomee na nga julli ci moom diirug jamono ci saay rek baatin kon ma xawta faree nga bil Moustapha ci darajaay ki ñu tànn ka xale yàlla ci moom Moustapha moomee min ka ci yow yàlla ci moom ci nga faree mawtee sama faatu dëxra diiru jamono saaqul din mbir moom may borom sax di beel di taamine ànd ko sécurité mooy du ma faatu mukk ndax dindi nga sama faatu ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam xasafta mawtee fii daarini mun xasifan bi jaahi man matuhoo yaati bi taamini xasafta dindi nga mooy dàq nga bu ñu xasaf mooy loo xam ne dañ ko dindi ba mu set xasafta dindi nga mawtee sama faatu fii daarini ëpp na ko alaxira mun xasifan mbir moom mooy aji dàqu bi man ci nga xamee ne matuwoo tagg bi ma koy tagg yaati dana ma indil bi taamine li nga xam ne moo di sécurité yàlla sama faatu su fekkoon ne am naa dig boo xam ne bu jotee rek ma faatu yàlla xasaf nga ko su fekkoon ne métti dee war naa koo yëg yàlla dindi nga ko aduna ak alaxira sama dara du faatu dara du faatu sama dara du dee aduna ak alaxira sama lépp day dund. defal nga ma ko ci barke bi yonent bi sallallahu mi nga xam ne man borom Touba tagg yi ma koy tagg ci laay jëlee sécurité bu ma bëggee sécurité daal faaw mu jël samay xel mi tagg yonent bi kon tagg yi ma koy tagg moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci li may indilee ak sécurité. moo tax mu ne ko xasabta dog nga mawtee sama faatu fii daarin ëdd na kalaxira mun xasifan mbir moom muy aji dog bi jaay man ci darjaay ka nga xam ne mawtuwoo tag matuwoo tag yi ma koy tag yaati moom muy indil vitamine sécurité kon daal yàlla dog na ak di xam mooy doonu koo xam ne day faatu. madattali samanan yaati bila adadin wala intihain bi taxribin wa taaminin madatta li muy waxanteeg yàlla ba tey mu ngi naan ko madatta tëbbu nga lii ñeel ma sama nan njëg yaati góog dana dikk bila adadin ci lurut am limite wala intihaa in wala ak yemukaay bi taxribin ànd akoog di ma jegeel sa jëmm ji wa taamini waaye di defal sécurité ba tey yàlla waxtu ne yaa ngi may tëbbu njëg goo xam ne day dikk du am xadat du am intihaa njëg gi fa muy bay ko ci yàlla mooy du jeex fa muy ci borom Tuubaa du fees loolu mooy xadat ak intihaa moo tax mu ne njëg gi may jox day dikk waxtu di ñëw ci man borom du am limite foo xam ne bu fa yeggee ñu ne fii lay wala foo xam ne bu fa yeggee ñu ne fees na kooku du am mukk waaye nag danga maa defal taqrib atamini waxtu wu ne suñu borom da koy gën di jegal jëmmam ja di ko defal sécurité mu ne ko madat lil muntaqa fawqal muna abadan ani wali kunta bil maahi bitamini madatta tëbbu nga lil muntaqa ñeel ka ñu tànn ka fawqal muna lu koy mbébatam abadan faw dégg nga xan nii jëlee ko ci man bu la neex nga ne maddata na nga tëbb lil muntaxaa ñeel ka ñu tànn ka fa waxal mu naa lu kawe mbibitam abadan fa wax an nii jëlee ko ci man borom Tuubaa mu mel ni maa ko def waaye lottu naa ci ci laa koy sàkku wa kunta ta nekkal nga lii ñal ma bil maa yi ci daraja aji far bakkaar ja bi taamini ci li nga xam ne moo di sécurité mu ne ko yàlla maa ngi dagaan ci yow ndax lottu naa ci damaa bëgg muntaxaa mi di yónent bi lépp lu muy mbibét na ko ci jox lu koy mbibitam faw waaye nag may nekkal ci barkeb yónent bii di maa yi ci lu ñuy tuddee sécurité ma di ko am ci waxtu ne dafanta annil asa wal mawta fi abadin wa bil baqa juttali fatlan bi dafanta joñ nga andi mustarima al asa lépp luy lor wal mawta akuk faatu fii abadin ci luy sax ba faw wa jutta tabe nga lii ñal ma fatlan ci ngëneel ci sa ngëneel bil baqaay ma di fi des bi taamini ànd ak sécurité yàlla difandar nga ma bépp lor defal nga ma lu ñuy wax dafon mooy joñoon nga ma ko musal ma ci daqal ma ko musarima lu ñuy wax faatu dox nga sama diggante ak moom dog nga ko muy dootul ma dal waaye may nga ma fi dootuma faatu ma di fi des faw sama jëf ci waxtu ne mu di fi des loolu nag danga koo def rek ci sa ngëneel ci sa baax ngëneel li nga baaxoo di defal sab jaam rek loolu nga ma defal danga maa defal ba tey yemoo ci rek ma di fi sax waaye bu fi saxoon rek mu di neex waaye nag sax gu ànd ko sécurité moom la suñu borom defal borom Tuubaa kon xasida goog Allahu Muhammad nga xamee ne lépp baatab taamiini tabaarakallahu ci la daane moom xasida gi foofu la yem muy dafaxta an yel asa wal mawta fi abadin wa bil baqa jutali fadan bi taamin yi kon jànkutu xasida day am taamin ci biir ci saayir ak ci baatin sécurité jànkutu xasida da koy am bam doy sëkk